si man dama doon dem si làmb passe aller kese lay yóbbu du ma xalaat retour de aller kese lay yóbbu. moo tax doo xalaat retour da leer na boo demee da ngay andi wala. yoruma retour te damaa bëgg a bëre ji. aller rek lay lijjante de bu ma demee li suñu borom def xam xam ne loolu bu ma amul itamit ay mbër ñoo may teral wala ki euh, woykat yi wala woykat yi ñu may la paas wala tëggkat yi wala supporter yi kenn waaj yëkkati weccet jox la. Foya defal na ma ko Foya dem nañu làmbu caare boobu may def poussière passe allé kese laa yóbbu ma koy nuyu bu baax <laughs> ñu dem làmb ji tas mu gis ma rek boobu dama bëre poussière daanu bëriwaat daanu ñëw ci làmb bi poids lourd ñëw yëngal rek ñëw togg ak àll boobu noonu muy romb nee ma du sànni ama yëkkati dara jox ma moo tax itamit làmb boo dem suñu borom bu la war sakalee dara woykat yi dañ dañuy def si ñoom dara ndaxte loolu ñoom ñoo ko njëkkee si ñun tey faya moo ko def mais woykat yi yëpp la ko defal lépp la ko defal ndaxte itamit woykat bu ma gis boobu lay xalaat loolu laa koy jàppe man awma woykat ñëpp laa jàpp. mais mais mais woy am na fu la yóbbu ci làmp woy moom ah même góor sax buy doon woy gars di tëgg. na gaa yi taxaw rek ne làmb la def may yóbbu. tàngal sa yaram waaw. <laughs> day tàngal sama yaram <laughs> loolu moom amoo ci problème <laughs> waaw. da koy sentir da nga koy yëg. waaw kese c'est làmb da nga garaaw quoi c'est que milieu bi boo koy dund. moo tax des pour nga gis la duusaane rek mu dem seetaani làmb daa jafe ñu bëri dañ koy xaar duusaane bëriwul solul rek. seetaani am na de mais aka néew. buñ ma ajee daaw lu nekk laa doon def si làmb yi ma demee seetaan yi sama xol du ko antal may def ga ma bokk def problème gars yi wax ne daa réew affaire yooyu moo tax làmb dama kaa bàyyi. <laughs> waaw mais mbër <laughs> euh, ñu dem ñu dem gànge sërif gànge sërif gis na nga dem fa euh, jël fa oto ana oto bi. oto bi génn na. génn na waaw mu ngi daw. mu ngi daw. Euh, dégg naa oto bi dafa am problème moteur wala. waaw oto bi moom am na problème moteur moteur bi day kii quoi day lekk huile mais oto bi baax na oto bu waaw oto bu baax la. ban marque la. Hyundai. Hyundai. Mhm. Mhm. bu baax la moom. mais loolu moom matériel moom buñ koy teg ci làmb moom avantage su mbër yi la mhm. te loolu itamit mbër bu nekk loolu lu ko yokku la xam nga tey am oto neex na trop ngay déplacé wu. moyen de transport. moyen de transport la te adduna bi instant yi làmb yi ñëw bari fu nekk la làmb di am te xam nga tey saret mënul dem làmb yi yëpp mënoo takk saret tey dem fii continuer loolu saret mënu ko te moto jakarta yi tamit mënu ko kon oto rek moo ko mën promoteurs yi bu ñu dugalee seen loxo moom ci matériel yi làmb yi dina gën a neex <laughs> yooyu waaw gën a gis seen bopp ci làmb ji mais tamit bëggoon naa ñu ñëw euh, sa diggante del xool sama caméraman bi sa diggante ak Biram moo la jiitu ci làmb mais tamit euh, foo leen dajee day metti biis bi. biis bi sama grand la aw dara lu ma koy wax xam nga lu tax xolam daa rafet ñoom bis bi ñoom ordinateur ñoom gaay yëpp daje nañu ñu ci bari xam naa lamb bi moom sele laa ci dajalu toon te moom daje nañu ak kan encore. gaa yooyu yëpp ñoom gaan seeraas gaa yooyu yëpp ay borom baax lañu mais xam nga lu tax man tey mbër bu mag mënuma kaa wax dara mbër bu mag mënuma kaa wax dara dara dara dara xale laa wax jiguma <laughs> jëf bi moom jig daal jëf nga jiital waa jëf laa jig yaag biram konkong ñaati yoon ngeen bëre man bu ma sañoon daal bu ñuy toog fii di lim sax maa ngi biram kumpung lu ñuy bëre lu ñu bërewul man daal limuma loolu sama bët bi si arène bi laa ko teg kuy toog di lim nag affaire du saane daan naa ko ndaan naa ko lii daan naa ko lii loolu moom la concerné biram kumpung bëre nañu bëre nañu suñu borom war sekal na ma sa kawam ma daan ko mënuma ko man làmb tey man lu ma visé mooy si dóor bi na gars yi jël ma si dóor bi bu ñu ma jëlee si dóor bi rek ma bàyyi simple. léegi ñu dugg ci dóor bi euh, benn combat arène nga amagum. waaw benn laa amagum. koo dajal. nanu. te avant nanu dañu ma proposé presque douze combats amul ku ci taxaw. moo tax sa combat arène du yomb. combat arène mënoo compétir nag. compétir ba wow koŋ ñoo combat arène ngay toog fii di bëri ay vingt minutes wala ngay toog di di bëri ay quinze minutes loolu mënuma kaa mënuma ko sa xam nga lu tax kattan bi ngay yóbbu ci arène benn combat mënu laa sonal tey dañoo tarbiwu làmb day fekk yaram yi mandi bëre fendi day mandi bëre moo tax am na yoo xamante ne moom combat du problème l'essentiel ku may dajal mooy problème mooy tey promoteur yi ñu bëri bëgg nañ maa tegal mais ku may dajal mooy problème bi. promoteur yi kon ñu ngi lay seet si pour combat arène. waaw ñu ngi waxtaan ak samay grand samay tons mais tamit adversaire yi nañuy wàcc. am na ñun lay proposé. am xam nga làmb ji instant yi daa am ñoo xamante ne mënumaa bëre ak ñoom daa ñoo xamante ne mun ngaa taxaw tey kii wax ne am naa 14 combats te kooku mu combat ak Doudou Sané du am xorom xam nga lu tax du am xorom jëmm yi ñoo bokkul. taxawaay yi taxawaay yi ñoo bokkul. te maanaam yow nga am huit combat ñu boole la ak Doudou Sané loolu du ko loolu du combat ndaxte xam nga leer na la ne Doudou Sané mën nañoo taxaw bëre. ambiance bi sax même si public bi sax dañ koy wax. comme bëri dafa mel dañ lay teggi. waa dañ lay teggi mais instant yi garant yi ñoo ma mun a jël. comme kan. ñoom mbaytin astaxfurlah euh, kii. njaaytin njaaytin ak ku tafaatin. waaw ñoom njaaytin. diisul ci yow. <laughs> loolu mooy lan. lii mooy doole xale bu amee doole moo tax gars yi di may moytu mais nañ ma jël dañ ma war a jël nag. boo amul njaaytin. ah boo amul njaaytin keneen. non ku ñëw baax na xam nga tey ah? boo waxee njaaytin njaaytin mun naa gis boppam ne du sànni daf maa lu tax mu may songu di may laaj mais tey njaaytin. catégorie Ndiaye Tine rek mun naa bëre ak ñoom. bu amee tamit damay dégg ci waxkat yi ñu naan mbër bu xamee ay adversaire am day neex a wutal combat boo nee diw ak diw sama ay adversaire lan xam nga tudd diw taxul nga may ko promotion mais diw ak diw sama adversaire lan war nañoo mën a bëre loolu day tax promoteurs yi xam xam yow ñi nga war a bëre. waa léegi te du tey nee naa la Ndiaye Tine bu ma xoolee njaaytin Tine waaw bu ñu waxee ne Ndiaye ñu njaay Tine war a mun a bari rek mun naa daje ak Doudou am na làmb yoo bëre kenn euh, tey am na loo xamante ne man munuma ko topp mbëri di wax ne kii ak kii ak kii ak kii yarewuñ ma noonu de kon luñ may yaree rek ci laa mun a tegu ay kilifa lay àndal ñoo koy dox ku ñëw bu baax na man laajuma ma xam la sax nañ ma wax ne am nga combat kese ma bëri. ku mu doon baax na fan nga teg sa bët ci arène bi. fu gars yi yëpp teg seen bot. mooy fan. roi des arènes kese. xam nga lan moo la fay yóbbu. maa ngi koy jëf. mooy lan. enterrement respecter sa bopp. waaw moo la fay yóbbu tëdu. kon loolu ñu ngi koy def. lan la la jaral loolu noonu. roi de arènes lum la jaral. <laughs> bii bii laa teg. bakkan bi nga ci teg. <laughs> bakkan bi <laughs> bakkan bi laa ci teg waaw. Euh, mais tamit dama remarqué benn affaire ba nga xamante ne bii man euh, de ma part impressionné na ma ci yow trop parce que dañuy wax benn baat ñaari baat nga ne kër gi benn baat ñaari baat nga ne kër gi. waaw. Euh, <laughs> gaynde bi nag jàng <laughs> xanaa yow da ngaa a jeexal kii bi <laughs> émission bi. waaw mu leer ci mbokk yi ay ñi ñuy seetaan. mais kër gi yoon la xam nga tey boo yaakaari ci làmb rek. bien vrai que am na yoo xamante ne boo koy looy def ci làmb sa ginnaaw ngay xalaat sa ginnaaw la ngay xalaat ndaxte itamit boo ñàkkee dina metti boo amee dina tane kon itamit nañ def le tout pour am pour mu mun a tane danga comprendre mais sama nijaay yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax ndaxte itamit taxaw nañ ma taxaw nañ ma dëgg waaw biir jof yor fi taxaw nañ ma dëgg dëgg dëgg dëgg sax xam nga lu tax sama yaay moo dund kóllëre boobu ñu ñëw itamit tegu ci loolu mu yar ñu ci loolu xam nga tey say waajur tey bu la bu la wone yoon jàpp nit yi boole leen ci seen bopp tey gi ni sama yaay foo génn ci dëkk bi amul ko ko xamul mais tamit noonu lañ mun a mel mënuñoo yor beneen jikko dañoo mun a yéemale ñëpp ndaxte moom ku suufel boppam la. sa relation ak sa yaay. sama yaay moom mooy sama aawo bi. waaw yow am jabar. amu ma sa yaay mooy sa aawo. Ah, waaw kay. bëgg. dama kaa bëgg tamit moom moom lay café loolu chaque jour bu ma même sama numéro am sax sama aawo bi laa ko bind. sa aawo nga ci bind. waaw. ay série booy kese laay dëgg affaire yooyu mais xam nga tey daa neex sa yaay ngeen nekk ngay kaf ak moom waaw foo leen taxaw ngay kaf ak moom affaire yooyu tey amaana tey damay gis ci kanamam mu ñàkk dara amu ko tey lu koy soulager ngay ñëw kaf ak moom même boo ko amul garaawul suñu borom mu ngi fi yàlla bari na sutura waaw mënuñoo toog te lekkuñu nag mais tamit am na yoo xamante ne da koy soxla mais ñàkk ko. mais da ngay ñëw nag soulager ko mais tey mënoo nekk góor kese euh, mënoo nekk góor tey dara ñàkk fi nekk naa fi ak samay mag nag ñuy daan seen doole affaire bi métti ci ñoom trop ndaxte itamit sama côté nu mu méttee noonu la seen côté méttee waaw mais xëj na suñu borom moo def ni may bëre te affaire bi yom di génne si bëre bi mais ñoom nag cër gi ñu am si man tey mënuñoo wax dara ma teggi ko au contraire maa mun a wax dara ñu tegg ko ndaxte itamit ñoom ñooy sama kilifa waaw boo leen gisee si jëmm dinañ tuuti trop mais tey jii ne bu ñu waxoon ne doo leen dugg si kër gi saane munu ci dara mooy kii ni taxaw ci ginnaaw bu waxoon ne doo leen dugg si kër gi barke siñ Faalu mënuma ci dara. loolu mooy kilifteef. waaw da ngay nangu ñu yilif la. xamal xamal tey suñu borom moo def loolu. moo def loolu kon am na yoo xamante ne mënuñu ko xëcc ay ndaw lañu mënuñ kaa xëcc xam nga tey des fois suñu borom day jaarale dara ci yow nga defe ne yow la mais du yow ñu nekk ci kër gi la ñoom ñoo tax suñu borom jaarale ko ci yow nga jot yi amaana tey lu ma def ci làmb sama jaar-jaar ci làmb chaque jour bu ñu génnee suñu borom sedd ñu tuuti amaana tey seen wërsëg la ñu nekk ci kër gi seen wërsëg lay doxee ñu may àndal seen wërsëg lay doxee ndaxte ñu may àndal ñëpp kenn ci ñoom seen loxoom jotul ginnaaw mais dañoo manqué suudew doon benn bu ñu duggee ci làmb ñu defe ne ñoom waa Duusaane xaalis la ñu yore mais itamit du foofu affaire bi sutura si sutura sutura moo ci bari mais xam nga tey mënuñoo toog di wax ne nañu gars yi jàppale affaire yooyu bien vrai que dañu ñëw war a jàppale dañoo war a jàppale dëgg mais am na yoo xamante ne itamit mënuñu kaa def toog ci mbedd bi tout le temps ñuy wax ci loolu affaire yooyu jaru ko adduna la lu bëri day jàll lu metti day jàll. waaw loolu la mbër wax lu metti lu nekk day jàll mais xam na ne yaa ngi écrit euh, Tay Shinger ci Eumeu Sène ñu bëggoon a xam lan moo la yóbbu ci Eumeu Sène ak nan nga def ba dugg fa ak sa relation ak Eumeu Sène tamit. non man sama relation ak Eumeu Sène man njëkkoon naa nekk ci écrit mooy écrit Lac de Guiers koy nuyu de passage. écrit waalo écrit mooy nuyu Lac de Guiers de passage sama grand la itamit nekk naa si écrit yam euh, nekk naa këram itamit dund nañu lu rafet ma koy ñaanal waajuram ju jigéen suñu borom tawal ko biir àjjana waaw xam nga tey àdduna daa metti te boo nekkee boo nekkee fenn avancement moo la fa yóbbu te mënuma nekk écrit waalo mënuma affilié ci écrit bi te ma nekk foofu bugg avancement ci làmbu amoon problème mu affiliation. waaw ma am problème mu affiliation. Mm-hmm. ma am problème xam nga boo amee problème affiliation du am combat waaw kenn du la reconnaître mais tey jii nii tamit ay ndaw lañu ci kaw lañu soxla mu mënuñoo toog fenn foo xamante ne du ñu avancer ñaanuñu benn mbër ñaanuñu leen de comme mbër yu mag yi nii ñaanuma ci kenn i tamit buñ ma jàppale baax na de mais ñaanuma ci kenn waa xamatan loolu daa neex nga nekk ci yi am komba sama nijaay tamit génnee ma foofu woo Eumeu Sène Eumeu Sène accordé loolu nee ma na ñëw bu ñëwee day am komba man ma dem mu confirmer loolu am ko ma am komba dem ci Eumeu Sène am combat. am combat mu taxaw ma nag. mu taxaw ma ma dem suñu borom mooy ma ndam ma daan kooku mënuma kaa fay. waaw mënuma kaa fay. ci këru àdduna. lu la defal. ci loolu kese xam nga tey ku la ku la yëkkati génnee la pour nit yi xàmme la ràññee la kooku mënoo kaa fay même boo ko joxee ay millions mënoo kaa fay kooku mënoo kaa fay kon jëf ju rafet jooju maa ko ñaanal borom bi mu mu yokku ko ba mu yëgu ko tegi ne euh, yoon bi kii na da kii na daal métti na daal mais moom jàpp na ci. jàpp na ci ci mbiru combat. gis combat mam ak Lac de Guiers rek yaa nga doon nga liggéey ak moom. sama ménagère encore euh, maa koy kii bu baax a baax di koy nuyu bu baax a baax di koy wax ne na gën a jàpp nag. Cheikh Ndoye combat yi nañu gën a ñëw. waaw lu ñu am ci combat euh, yi daal soxal nañu trop. na combat combat yi yow bëgg nga combat yi ñëw mais nangu woo wax ñi nga war a bëreel tamit. yow amaana yow tey ah xam nga ñu ma war a bëril. <laughs> sa combat góor a soog. combat bu neex la. yaa góor bu neex la. Hmm? loolu combat bu neex. pare nga pour pour jël góor a pare naa bu ko paree. Hmm. aw ma mbër bu may teggi. da hmm. ngay comprendre. teggiwoo kenn. yi yëpp ku ñu ñëw baax na. sa combat Ndiaye 2. bu ñëwee baax na man ba ñu ma benn mbër. billaahi ba ñu. yooyu yéen a bokk mbapat bi de. comprendre sax nañu boole woon combat nga xool dër bi moo gën a. njaay ki démb lan daje ñaaxar mu toj ko. mu toj ko yoon la pour mu toj ko daa war a wane boppam ndaxte mbër bu nekk moo war a wone boppam te amaana tey ñu bari yaakaar nañu ci moom daa war a def lu mu war a def moom lu ko war rek la la def waaw. déggantaan. pare nga pour bëre ak pare naa ko na gaa it. Hmm. kii avance bi ñëw. na avance bi ñëw rek ma lekk ko. nga fanaanoo ko. avance bu ñëw moom xam naa ne du delluwaat. Hmm. ak ku mu mënti doon. avance bu ñëw xam naa ne du dëppuwaat. Hmm. billaahi am na yenn yoo xamante ne itamit promoteur dañ koy def. xam ne kii ak kii mënuñoo bëri àdduna àdduna mënu neex ba ñu bëri. comme lu cadre man ak ëbbali àdduna mënul neex ba ñu bëri ñu ñëw indil ma avance Obali loolu da ko yàq. yéen bokk Diofior. ñoo bokk Diofior ca Diofior bala. te mënuñ ko wax euh, xar ñaar na yenn yoo xamante ne Diofior Diofior tey tey bu ñu bëggoon combat bi sax Diofior ñooy bañ te Diofior bu ñu bañee kenn suñu ñu kenn du bëri Diofior tey moom lañu am comme itamit couleur Diofior la ñuy représenté am na yoo xamante ni tamit. comme gars yi bu ñu koy wax sax damay yee rek du ma ciy détaillé du ma ciy détaillé. mais sànq bu léegi yaa ngi wax affaire u jàppale ba dañ lay permettre nga nga nga nga wax ñi nga xamante ne bii ñoo la war a jàppale parce que euh, ñëpp xam na ne Diofior nga dëkk te Diofior am na ay autorités yu fi dëkk te ni ñu koy waxee. doomu dëkk bu nekk ñu nekk ci biir dëkk ba ñoo ko war a mën a jàppale parce que li ngay dàqee kéwél muy jëm ca àll ba nga dàq bay bi mu dugg si biir kër bi ni olof Njaay di wax bay ci sa wewu tànk wala ngaa dimbale kenn ku nekk ci àll bi dimbaleel sa doomu dëkk ba pare am na ay autorités yu nekk biir Diofior. waaw bari nañu bari nañu ay autorité yu nekk biir Diofior mais tamit euh, mënoo ci tudd nit. da ngay da ngay généraliser mais daa am koo xamante ne tamit moom la ñu dënk dëkk bi muy monsieur le te xam nga ne mbër bu jokk si gox. bu demee bëre ji day sant maire ba ndaxte maire bi day yekkati dara jox ko mais amaana ñun gisuñu ko te maire bi da kaa waroon def xam nga lan moo ma gën a métti ci loolu tey mënuma am combat sama fans club mag yi yëpp mobilisé wu dem ci maire duusaani daa am combat mu convoqué leen génn foofu bàyyi foofu demal boppam feneen hmm? génn mairie ba demal boppam ba tey gi ni wax maire joxuñu dara. bi ngay waajal sa combat. bi may waajal sama komba ay bonne volonté ci biir dëkk bi ñoom Omar Badiane kooku jënd na kaar defal nañu kaar euh, la dame la euh, sukaay maa ngi koy nuyu bu baax kooku itamit taxaw na ci bu baax ñoom xaadim fuur ñoom ñoom bari na daal ma limee rek damay juum damay juum ñoom Lamine Diouf ñoom Boucar Diouf ñoom Karim Sène Karim seen sax def na kaar. Sène bu bu bu Fimela. bu Fimela Fimela Fimela te kooku kaar la génnee jox ñu amaanaam maire itamit waroon naa def noonu te defu ko. mais yow est-ce que jógal nga sa bopp dem ba ci maire na ko dama am combat. numéro mu ngi sama portable dañuy déggante. mais defu ko mais am na yoo xamante ne sànni doo ko toppee nit ñoom Moustapha Diouf kooku sama nijaay la aw ma fayam ñooñu dañoo jàpp. man conseil bi ma lay jox mooy doxalal rek del bëre di daan ñoom dinañ ñëw te kenn du leen woo. mais tey ñoom dinañ ñëw te kenn du leen woo mais tey ñoom force la obligatoire la ñu mun a ñëw jàpp ci. ndaxte combat bi du question du saane rek mooy bëre de Diofior ñooy bëre feneen ak feneen ñooy bëre région Fatick ñooy bëre fans du saane Sénégal ñooy bëre kon du bu daanoo ñoom ñëpp ñooy daanu kon képp kuy bëgge du saane wax ne du xam wax ne du saane moo may bëggloo tey du boo bu amee combat dañ cee war a jóg taxaw xaar si sa tànk tubee ndaxte itamit am na am na loo xamante ne ñun ñu ngi koy def tey mënuñoo nelaw ba doyal ngir ñoom bien vrai ko ñun ñooy am lu ñuy am am am bi day ñëw si ñun de mais am na amaana tey bu ñu bi si ñoom lay gën a neex tey bu ñu daan woon dina métti si ñoom trop tey mënoon ngaa toog ak nit bëgge duusaane trop moom mu bëggee keneen duusaane daanu yow doo mer doo reer te am na loo xamante ne mënoon nga kaa def te defoo ko pour duusaani avancé kon loolu itamit nañ koy sóoraale bu baax. Euh, mais bala ñuy tàggatoo rek bëggoon naa xam mbër lan mooy plat préféré ban plat la gën a bëgg. man nag aw plat préféré lépp lay lekk l' <laughs> essentiel daal bu mu bëri kaane. bu mu bëri xorom bu mu lewet. na saf. <laughs> rang muy gaaw bëgg na lu saf. <laughs> waaw ñëpp a ko bëgg de. <laughs> foo toll ci euh, takk soxna. <laughs> waaw non bi nga dugg see gisoo sama rakk yi xanaa sama rakk yu jigéen yi mm. kenn non sama rakk yi seeguñu. Mm. mère bi itamit am na ñoo xamante ne. Mm. xaarewuma ko. Ah. xaarewuma soxna léegi de. ah, ah du saa soxna léegi. waaw bëgg am soxna andi andi mujj noppal mère bi. ak ma xalaat nag jour bu may am soxna <laughs> yow. lu tax nga koy xalaat. <laughs> Ah. lu tax nga koy xalaat. <laughs> non daa métti rek dama xam ne ak kersa bu ma am sama côté yaay. ma xëy rek duusaane mu am ñëw ne ko damay tàkk soxna loolu moom daf may travail ah. instant moom bàyyee ah, bàyyi ma rek célibataire la célibataire la. yaa ngi kepp ci xale yi quoi. kepp lan. yaa ngi kepp ci xale yi. waaye bu may kepp ci xale yi xam nga xam nga. bu ma duggeen si làmb yi nga xam bu ma duggee si làmb day leer force képp si xale dugal si làmb ji nga ah, xool topp ma la de man fi laa fekk rek ak ci làmb la ñuy daje. waa léegi xam nga kuy kepp si xale yi daa yomb a ràññee nun koy ràññee doo am arrière cuisse doo am arrière doo am arrière cuisse lii daa jafe de <laughs> boo képpee si xale yi rek mu dañ de waaw ku la plaqué nag deux pas ngay def daanu sa arrière cuisse duñu dëgër kon mbër tey loolu du lu mu war a def munta ñàkk mais warul bari ci moom comme conseil la rek ndaxte itamit samay rakk ñooy bari biir Diofior ñoo xamante ne dañuy débuté dañu génn fonk seen bopp gis nga luy téye mbër ci suuf la nekk ci suuf la nekk waaw te loolu sidit yooyu bu ñu mënul tatiyee day métti ci yow ku la songu daan la doo am résistance kon athlète respecter sa bopp rek waaw sentiment nag mun ñàkk mais respecter sa bopp benn nit yi yëpp xam ne kii daa respecté boppam waaw lu am ëllëg i tamit ñu wax ne kii gëm na boppam lu lu munta ñàkk la waaw loolu mooy kii bi quoi conseil conseil bi kàddu gu mujj gi lan la waaw di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di kontaan si ñëpp di bëggee samay fans bu baax a baax waa Fatick Mbella Kadiaw am nga am nga am nga am nga am nga benn fans bu nekk Espagne ñu naan ko Rijal xam naa xamoo ko mais ku la bëgg la Rijal parce que sànq waaw Rijal bu duusaane waaye kooku xam naa bu baax a baax sànq rek ñoo doon waxtaan. si whatsapp bi. Ah, xamante ngeen. kooku blouson yi moo ko def. blouson yu ñuy sol yu gars yi di sol di dem si kii bi. ñu koy duggee làmb kooku moo ko def. kooku day sonn si ñun. Euh, amuñu feyam suñu borom mooy ko fey xolam. mais ñuy ñaanal ñëpp jàmm. waa Marlooj waa il bi yëpp. bàyyuma kenn àndunale fop. Euh, xedaa itamit. o damtelo le wiine moƴo damta in o ɓatana ina ñaan kude ñaan na doye ɗatale ɗoma trop ku refna he jega teen mais in way ndana teen doole in in way ñoxora teen sonna teen itamit mais a ñaana ke itamit fada moƴo ngar yaam a ñaana ke rek mbaagu suta in teen itamit xeɗa fo xeɗana fop jam itamit saqu an toog nuun saate fuu limeeruma i palmarin joal fop saate fuu kobo ngoy saate fuu limeer na daan suƴaan ke fop wasim fen fo oyin euh, ngeesinin saate ke bidna in fop ndofin fop jegaam a jeg meen supporter fop mais itamit région Fatick fop mais gidma den paax a paax Sénégal fop diaspora fee david den a ken den a mosa tigi tigi tigi tigi sax i wa Casamance itamit jegim david den gambi sax kan jega wana mbege xam jegim david den damay dugg gambi maa ngi jaajëfal ñëpp su may mbokki joolaay ni nga amee cër ci séeréer nga amee cër ci joolaay xam nga joolaay sànq itamit wax naa ci joola ma ne leen ji sofoorom jàkk indi a ñoolu euh, fooñitu jirampenom jingunom duwoyi bunga bulebi lebi fang me duwoye ngolen le prololi to jisofore li duwoy fang manji ngolen ji baj wanji mangum to allah ok jaajëf sampion kontaan nan ok ñoo gën a kontaan moon nan mbégte trop sekk ak yow waxtaan surtout fekk la fi nga xamante ne bii mooy sa fief fi nga dëkk fi nga jud fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga dëkk n'est-ce pas je pense bien que mar nga juddoo waaw Mar laa juddoo. Hmm. mais Diofior laa dëkk. Diofior nga màggee. Diofior laa màggee. Hmm. sama lépp fii la. Hmm. ndaxte ko am kër. fii boo yeewoo ci dëkk bi ngay yeewoo. looy wër itamit yàgg yàgg ci dëkk bi ngay ñëw. foo dem tamit lu mu ko dëgg di Diofior ngay fanaan si. ndam boo am itamit yàgg yàgg Diofior lay ñëw Diofior nga koy andi kon Diofior. couleuram lañuy représenté kon itamit nañuy jóg taxaw. gën a jàppale mbër yu nekk ci localité bi yëpp. waaw rawatina bi Diofior maa ngi di jaajëfal ñëpp samay grand yi ñoom Obali ñoom Babou Sarr ak ñu bàyyi bëri ñoom Matar Senghor maa leen di nuyu bu baax a baax ñoom Mama ñoom Bour Tefes ñooñu ñëpp ay champion la ñu woon ñoom Lamine Gueye euh, ñoom Babou Simal ñoom bambu maam Thiam gaa yooyu yëpp dañoo yàgg di bëre biir Diofior jaajëf sampiyo mbégte ak contentement la ñu amoon sekk ak moom li nga xamante ne bii moom mooy waxtaan fii ci Diofior di ko ñaanal rek suñu borom defal ko jàmm defal ko li nga xamante ne bii moom mooy xéewal euh, li ma gën a impressionné ci waxtaan bi bokk na ma bokk na ci digganteem ak papaam wante digganteem ak yaayam wante digganteem ak li nga xamante ne bii moom mooy fameem xam nañ ne soutien de famille la ba pare loolu mi ngi koy bàyyi xel fu mu jëm lool lay doxee loolu lay bàyyi ci xelam loolu lay loolu lay loolu lay loolu lay loolu lay euh, taxawee mu nekk mbër ba nga xamante ne bi sampion la ci làmb ji la bokk sampion yi nañ ko jël nag ndax incha allah mi ngi ñëw boo leen ko jëlul léegi ci kanam tuuti day gën a metti dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen jataay ak beneen mbër fii ci Leewtoo TV yàlla na jàmm yàgg